koo xam ne ku ma bëgg la itam gannaaw kon sopp naa ko naw naa ko bëgg naa ko ci ay meloom ak jikkoom bëgg lu baax di nit koo xam ne si borom daf koo def ci wommatekat yi nga xam ne dañuy xettali mbindeef yi loolu nekk ci moom boolenu du luy dañ day luy sax ba faw di yokk ba abadan sëñ Saalix daanaka sax loolu ma di leen ko wax moom itam ndax dafa fés noo bokkoon nekk ci réew arab ya di sàkk xam te du jiitu loolu it yàlla boole woon nañu li mu wax ci sëñ Muntaqa lépp nekk ci moom xam-xamam it du lu kenn umpalewu di lu bir àdduna bépp mu di njiit loo xam ni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 توفيق خالقنا الملك من خير ما هجر